tey nag xam naa danañ ñëw ci benn secret boo xamante ni dana aju ci loo xam ne dana ma yitteel man waaye dana yitteel mboolem koo xamante ni ndaw nga te yaa ngi dugg ci yoon ndax ku ne xam na ne bët ak làmmiñ dafa bokk ci liy gàllankoor doomu aadama moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne bu kenn ci yéen gisee lu ko yéem ci mbokkum jullitam na wax macha allah bu dee da gis kër gu rafet oto bu rafet soxna su rafet loo gis ci nit ki mu yéem la waxal macha allah bu ko defee loolee loraange du ca jóge ñu seetlu nag de léeg-léeg dana am ñoo xamante ne danañ tudd sa am-am wala tudd sa man-man wala tudd sa xam-xam ngir lan ngir catu la maanaam seeni lor di la dal te lu ñoo ko ciy jublu ngir lan bëgg laa gàllankoor ko léeg nga taseeg ni mën la léeg nga ni mën la temps yi day nëmmoo dara wala temps yi de man nga dara wala temps yi lu dara wala temps yi da ngaa leer wala temps yi yaa téye affaire bi wala temps yi biri sa wala temps yi moom ubbeeku nga wala temps yi sa kurus bënn na léeg-léeg ay nit danañ ko wax seen mbokk léegi mën nañ caa jublu kaf waaye xam ne danañ ca jublu kaf waaye làqaale ñoom xëy na bëgg nañ laa gàllankoor ndax dañuy wax ne nit ki mën na laa wax loo xamante ni loram di la dal loraangee jëm cee am du ko du xam léeg-léeg yow mën ngaa wax loo xam ne mooy lor sa bopp bu ko defee képp koo xamante ni dangaa ragal cat yàqal la wala nga ragal ki lay gimiñu gimiñu bu ñu ko waxee léeg-léeg da nga amul tool sax nit gimiñu la mag ñi dañ daan bind dara di ko def seen tool yi pour ragal gimiñu léeg-léeg boo ragalee nit gimiñu la gémmiñu la ci sa soxna wala gimiñu la ci sa palaas wala gimiñu la sa oto wala gémmiñu la ci sa say gimiñu say doom wala gimiñu la ci li nga am maanaam lim lay wax gimiñam yàq ndax léeg-léeg nga gis koo xamante ni jigéen lay doon day kurti kurti rek di jël ay vaisselle wala ay mbir wala ay parfum di taqale di jaayantu di vente en ligne affaire bi tàmbalee dox wala muy def restauration di jaay wàllu di def traiteur di jaay wala mu yor commerce sax di liggéey wala ku góor dégg wala yow nga yor auto sax di liggéey gars yi tàmbali nan sa waay temps yi de liggéey bi moom tubaarkàlla fi eh, ki kay liggéey bi dox na ñëpp teg ci làmmiñ nga jékki-jékki rek gis affaire bi tàmbalee rës ndànk-ndànk wala nga tukki bitim réew sa premier at nga tàmbali fa rek mbir yi tàmbali ubbeeku gars yi tàmbali booy ba mu fi ñëwee yàggul waaye fi doon toll nii tubaarkàlla moom ak gars yëpp dégg naa tabax na kër jël na oto takk na soxna wax ji bëri bu defee làmmiñ yooyu bu la jàppee dëgg-dëgg fekk nga am gàllaaj nga taxaw man na laa man na la gàllankoor bu dee nag amoo taxawoo moom wala sa muslaay rek man nga faatu parce que yonent bi moo wax ci xadis yi wér ne bu amon dara lu meuna a dogal dogalu suñu borom ñu ne chat ak lamine la kon chat ak da fay yaq lu bëree bëri nit ñi damay wax ne dañoo fogg ne liggey da yomb lay dañ ma def ay def def lañ ma def fekk xamuñ ne doomu aadama yalla suñ borom bindul doomu aadama rek sanni ko ci àll ba kum kum neex rek liggey ko da rek koy détruire yaq ko déedéet doomu aadama yalla daf ko bind boole ko ay ak ay malaaka yu sel yo xane kiraman katibin yo xamanteni malaaka yo xane boy tuddu yalla wala ngay takko ci selate ñi ngi lay sam di la dar fo tollu ñooñu duñ la bàyyi mukk nit di ñëw di la détruire di la yàq ci ay caaxaan waaye nag boo ragalee yooyu yëpp mu am ci yow maa ngi lay wax loo xamante ne boo ko defee lépp loo xamante ne doomu aadama yëkkati na ko jëmee ko ci sa jëmm ci lu bon yàlla suñu borom dana ko delloowaat te jëmmi doomu aadama boobee jëf-jëf jooje moo xam min xawlin aw fi'lin moo xam jëf la wala wax la wala mu yebal nit mu jëf ko mbaam wax ko dana mel ne jëf joojee dana mel ne balu teng si bu ñu dóor ci miir ñi muy defee retour noonu la jëf ju bon dellu delluwaat ca moom bu dee daf laa liggéey liggéey bi dana dellu ci moom bu dee daf laa catu catu bi dana dellu ci moom bu dee daf laa kortu kortu bi dana dellu ci moom bu doon daf lay dëddale ak sa borom kër dana dellu ci moom bu doon daf laa bëgg a dàq ci barabu liggéeykaay boo nekk dana dellu ci moom naka nga koy defee mooy fexeel ba bindulu wa tiini banaa banaasi suuratu tiini banaasi ngay bindulu maanaam saaru wa tiini ngay bindulu li ko tàmbalee watti ni ba naa si saar yëpp ngay bind boo ko mënul bind wutal ko la ko bindal mais saar wu nekk nag xalima boppam la koy bindee xalima yi ñu xam ñu koy defee bant xalima boppam la koy bindee bu dee dangaa nekk bitim réew bu ko bindee ba pare na takkaale xalima yi booleel la ko ci yóbbante bi mu ñëw ci yow ba nañ la ko bindal ba noppi takkaaleel la xalima yi ci yóbbante bi mu ñëw ci yow bu dee senegal nga nekk ak foo mën nekk tamit nañ la fexe ba nga jot ci mbind mi jot ci xalima yi nga xooj saafara si ba mu yàbbi nga almet wala briquet wala foo ko mën a defee nga taal xalima gi lakk catu xalima gi fi mu doon bind li ciy ñuul nga cat lakk catu xalima gi bàyyi ko mu wadd ci saafara si maanaam cati xalima yëpp ngay lakk dugal ko ci saafara si faxas ko faxas ko fëgg ko ba mu wadd ci saafara si nga tege nee daal di jël saafara soosee nag boole ko ba mat fukki fan nga di ci sangu di ci naan sangu beeg naan bi bu la neexee def ko benn yoon ci journée bi waxtu woo ko defee baax na waaye dee ci sangu di ci naan bu matee fukki fan nag baax insha allah bu la suñ borom dogal suturaalee ba nga def ko ah xaw ma kan de waaye yow yàlla na suturaal ba lépp lu leen di defati mu këpp ca moom mee ko def ba tey ma ñëw ci wattiini ba naasi boobu ba tey beneen secret ngi ci boo binduloo wattiini ba naasi li may wax ndongo daara yi nga xam ne xam nañ asraar xam asraarul quraan moom du ci sikki sàkk xam nañ li may wax bu wér bindulul wattiini ba naasi koko binde noppi nga boole ko ak téméri dégi sumpu ak fukk ak benn wutal téméri dégi sumpu ak fukk ak benn nga def ko ci saafara si di ci sangu di ci naan momit ba mat juróom-ñaari fan loolee day kum fekkon ci chat mu sëxin ci sa yaram manam mu koroni ci sa yaram ba di la yàqal yàlla mën na la ca sutural boo ko defee it chat yàqalagu la yàlla mën la sutural ba bu chat ñëwee du la yàqal bu dalee sa yaram dana delu kon loolu lu am solo la ci saaru wattini banaasi beneen bi ma di ko waxaat moom it mooy ko xam ne da ngay doog a tàmbali te te dëgëragoo maanaam sam samp dëgëragul da nga bëgg a yàgg ca samp ma boo ci nag gudd fan lool te wér te am kaaraange doo tële fexeel ba bindulu wattiini banaasi lii may wax na secret bi yaakaar na c'est la première fois chaque jour ma insisté ne danaa ko partagé du ma ko partagé waaye ñun lu baax mënuñ ko jënj bindulul wattiini banaasi boo ko bindee ba noppi nga def ko saafara boko defé safara saafara ba nopi xoj ko ci siwo boko xojé ci siwo ba mu yabbi nga wut dugu bi suuna moy dugu ji ñi lek pep nga jël pep mi lu tollok sa loxo ni rek nga jiko ci suuf boko ji ba nopi nga jiko fu sel nak suuf su laab nga koy ji boko ji ba nopi bu dé yow mi nek ci réew tuba bi la man nga koo def wutal ben pot de pot fleur ni rek wala ben ah, pot nga def ci du suuf jël dugub ji nga jiko ci jël saafara ci di ko dugub ku ne xam dafa gawa sax boko ci arroser da naka bu defé ñaari fan ba ñetti fan da nga gis ne dugub ji tàmbali na sax di genn li nga jiwon bu tambalé sax bay genn ba nga séen ko rek ba nga gis ko mu genn di sax rek da di jël le desoon xam nga safara si jeexut amna lu deson ci safara si da ngay sempi dugub ji par ben par ben sempi dugub ji ni mu saxé non nga di ko sempi di dugal ci safara si di sempi dugal ci saafara si ba sempi dugub jëpp bam jeex ba mu ci safara ci dugub jojé ak la nga sempi dugal ko ci safara ci nga boole ko safara si bàyyi ko ci siwo bi bu ci fanane ba xëy suba nga tambali ko sango momit nga ko juróom-ñaari fan ku ko def de yalla man la sutural da nga am lo yore sa kër yalla man la sutural ba do tele ci walu geño manam geño moy kenn dula tak xala yalla man la sutural ba ndox dula lek bu ñe ndox dula lek nak moy do lap ci ndox yalla man la sutural sa geño dina deugar manam geño bu deugar moy li ma waxoon rek moy ci walu walu katan ci walu sey tey yàlla mën na laa suutaraal ba sag maas gi nga maasandool kenn du la ci mujj maanaam man ngaa gudd aw fan lool te ànd ak barke kon loolu laa ne woon tey danaa leen ko jox ci uh, wattiini ba naas yi muy secret bu am solo lool ci wàllu kaaraange ak ci wàllu defar aw yaram maanaam miine sa yaram ba kenn du la mën a yàqal ci wàllu xeetu njabar xeetu kort xeetu def-def yu bon yooyu kon fofu lañuy yam xamna inshallah naa incha allah ci vidéo boobu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh